ginnaaw bu ñu sante suñu mbokku taskatu xibaar yi ci wuy si bi ñu ñu wuy si dañuy sant d'abord peuple sénégalais joxe bu ñu benn résultat wante dañoo nemmeeku ne am na ñenn net ci organe de presse yi y presse étrangère yoo xam ni tàmbali nañoo joxe seen résultat ak seen verdict alors que benn instance maanaam benn kuréel ci biir Sénégal goo xam ni moo yor responsabilité joxe résultat joxe ñun ci suñu bopp résultat yi egsi ci ñun ci suñuy QG feeñal na ni opposition bi moo rawagum et que deuxième tour à la kulli alin mënta ñàkk presse levier la wala facteur de démocratie la waaye presse bi balaa muy gën a mën a jouer rôle am rek mooy day doon presse bu maandu presse boo xam ne dafa yem ci informer vrai et juste waaye rôle du moom mooy orienté conscience yi wala du moom mooy dugg ci war a wax mbir mi naka la demee moom moo ko war a commenté du moom moo ko war a déclaré du moom moo ko war a annoncé ñu ne nag ñun ñiy jóge ci campagne électorale xam nañu lan mooy solos presse ci dëkk ñun ñii ñoo gën a soxla presse parce que moo ñuy permettre ñu jokkoo ak askan wi ba li ñuy def nit ñi mën koo yëg waaye dañoo gis ni ci élection bi nga xam ne tey jii la vote bi am ñu gis ni am na lenn ci presse bi moo ngi fexe waajal askan wi ba fexe ba bëgga dugal ci boppu askan wi ni am na candidat en l'occurrence candidat Macky boo xam ne mun na gañe au premier tour te ñu ràññee ci groupe Futurs Médias ak 2STV yi ak ñeneen ñu ni mel ñu ne lool nag lu lu ñu mënut nangu la